salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yéen mbokk yi nga xamante ne yéenay bàyyi xel seen télévision Galaxy TV niñ leen ko waxee woon rek lañ leen fa yéenee toppal li nga xamante ne nii mooy màggal gi dalee ko ci benn fanu safar waaye nag ba ñu àgg ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar euh, saay bu ñu xëyee 10 heures leen indil plateau boo xamante ne jubluwaay bi mooy jàngale ci li nga xamante ne nii mooy euh, njàngalem sëriñ bi Cheikhul Khadim bu ñu demee ba di h ñu dikkaat ak yéen yaatalaatal leen ko muy beneen palaato euh, jubluwaay bi it mooy leeral ci li nga xamante ne mooy njàngalem sëriñ bi 21h it ñu dikkaat ak yéen wane wane waatal leen li nga xamante ne nii moom mooy njàngalem sëriñ bi kon nag mbokk yi mu ngi noonu ngeen bàyyi ñu xel bàyyi xel seen télévision Galaxy TV nañu xamante ne Galaxy TV fi la lépp di xewee